كتابتي أحمد بن أبدلاي قسنتي وسانني النلائي سنت بشرئي مكاتب التسوق أهمدنا ميسرا لما زر ساطع القرآن ونبي ما جادني بسايه ونفي أداني الله بالكتاب ومن أبيه بلا إتاب رب الإله والنبي أحمد وسيلتي وإنه المحمد كرامتي يا كوني يا عبد الله قديم عبد الله عبد الله رسولنا أحمد سعد الإله صلى عليه وكفى در الله جزاء منتقى خير الجزاء fi kulli saasin wa saati jazaa bihtu bi laa ilaaha illallaah siran wa laa ilaaha illallaah haaja al-qasaa'id quluub jundi laay عطاء بالسنغال آه هذه الزيارة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية هذه لنا في مدينة طوبة الحبيبة وجئنا لتنظيم آه القوافل الطبية ثلاث قوافل طبية لثلاثة أيام متتاليات من يوم الجمعة اليوم إن شاء الله لست وديزويت وديزنف هذه القوافل الطبية تمت بشراكة مع مؤسسة السيدة الأولى بطوبة السيدة سخنة بالي وبدعوة منها ومن الخليفة حفظه الله خليفة الطريقة المريدية القوافل الطبية الحمد لله يعني وجدنا الأمور ميسرة هنا جدا وهناك تعاون من فريق العمل بمؤسسة سخنة بالي قدم تعاون كبير جدا هناك تخصصات عديدة موجود تخصصات مثل الأسنان وأمراض النساء والولادة وأمراض القلب وهناك أماكن مخصصة أيضا لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة كما تفضل الصحفيون وكانوا معنا وصوروا كل هذه التخصصات بالداخل كذلك الأدوية ولمسنا حاجة الناس هنا لمثل هذه الأعمال لأن هذه الأمور تقدم مجانا للناس الكشف مجانا والأدوية التي يحصل عليها الناس أيضا مجانا فهذا شكر موصول لمؤسسة السيدة الأولى سخنة بالي ولسعادة الشيوخ الذين حضروا معنا الشيخ فاضل والشيخ أحمد صالو والشيخ شعيب والشيخ عبد القادر حفظهم الله وجزاهم الله خيرا على حسن الاستقبال وعلى حسن الضيافه جزاكم الله خير mbokk mi doon wax léegi mooy Ibrahima Rousli moo jiite ONG bi ñuy wax ONG ATA ONG la boo xam ne ñu ngi basé wu ci Dakar di dimbalante réewu Xatar ak yeneen réew yu dul Xatar ci lépp loo xam ne dafay dimbali doomu aadama lépp loo xam ne dafay xam ne dafay dimbali néew ju doole yi euh, nag wax na ni bii mooy ñaareelu yoon mu ñëw fi ci lu matul ñaari weer ci jokkalanteem ak fondation Soxna Bali bi nga xam ne soxna sedd si di Soxna Bali Muntaxa moo ko jiitee mu bëgg loolu nag ci ñëw ngi fi ñëw tey ndax ñëw la goo xam ne dafa ñëw ngir jege population bi ñëw fi ngir saafante population waaye ñëw fi ngir saafara jéem a saafara lenn si jàngoro population bi nee na caravane bii dina fi def ñetti fan tey la tàmbali àjjuma le 17 fas yéene jeex ginnaaw suba ci 19 nee na bëri na ay domaines yoo xam ne dañu ko fi def dañ seet xale yi dañ seet mag ñi dañ seet jigéen wérul yi dañ seet yaram doomu aadama yi euh, li gën a dalal xelam mooy bi mu consulté ñi nga xam ne ñoom la dénk liggéey bi xamal ko ni garab yi ñu yittewoo yëpp mi ngi mi ngi si place loolu nag dina doon loo xam ni euh, ndimbal la nee na fas yéene ñoo yem fii waaye dinañ continuer rek dimbalante ak soxna Bally ci lépp loo xam ni njëriñu doomu aadama yi la njëriñu askan wi njëriñu réew mi waaye rawatina njëriñu dëkk bu tedd bi di Touba nee na mi ngi bég loolu nag bi mu fi ñëwee euh, fekk fi sëñ Fallou Mbacke mii di njaboot Cheikh Mouhamadou Moustapha Bassir waaye di kenn ci waa fondation bi soxna si teg ci wetam mu koy jàppale ak sëñ Abdou Khadir bi mu sëñ Moussa Abdou Aziz ak sëñ Souaïbou Mbacke mu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñoom ñëpp suñ fi teewee day mel ni jëmmi Sëriñ Muntaxa moo fi teew waaye bu ñu fi teewee day jëmmi soxna Bali moo fi teew nee na nag mu ngi nuyu équipe bi nga xam ñoom la fekk mu ñii mu koo fi liggéey bi di leen jotal aussi nuyu ñi mu àndal muy sëñ naaj mi nga xam ni euh, mooy lépp luy projet ci ONG bi ak Moustapha Cissé mi nga xam ni bënn lu ñu doxal ci tubaa te ci loxoom lay jaar di kenn ci moom yàgg fee jëf-jëf yu mel nii ci wàllu social ci wàllu dimbali ci wàllu tabaski ci wàllu teen ci wàllu jàkkee ak jumaa yi kon daal mi ngi gërëm équipe bi mu fekk yëpp waxtu bi moo xat ajjuma ji xat waaye mi ngi leen ñaanal daan réussir bu baax ci liggéey bi leen xam ne aussi lii du yem ci tey dinañ ko def ci ay yoon yoon yoon ànd ko fondation Soxna Bally incha allah. Euh, fondation bi ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha itam ndax jamono yi ngeen fii ñëw dafay jamono yu màgg ci dëkk bi jamono yu màgg ci Sénégal di jamono yu màgg ci tarixa muridiyya di jamono yu màggal ñu ngi ci biir màggal gi yitte ñëpp mu ngi ci. jéem a sàkku lu ñu contribuer lu ñu taxawalee lu ñu saytoo maggal gi ba mu gën a jaar yoon gën a jëriñ bindeef yi nga xam ne dañ fi ñëw ak ñoo fi dëkk ngir euh, euh, lépp mën a jaar yoon ñëpp mën a jariñu ci fànn yu wute ñoo ngi leen dalal jàmm ndax euh, ni nga ko waxee léegi bu yàggut da ngeen fi jóge ñëw yéene am partenariat ak ak ak fondation Soxna Bally te yéen ji yemu leen ci dinañ ko wax waaye dinañ koo jëf am na yoo xam ne dañ ko waxagum fii ndax euh, mu ngi suñ kanam euh, ngeen diggee ko te diggee gi yemu leen ci ñu ngi yéen ngi dox ay jéego yu yu concret euh, jëm ca diggee yooyu waaye lii mooy jéego bu njëkk bi te lii fondation bi daf koo fonk ndax bokk na ci lii li nga xam ne ñëpp ko soxla muy santé dëkk bi dafa soxla bu baax a baax ay taxawu. ak i taxawuwaat ci wàllu euh, santé kon fi ngeen ñu fekk ak li ngeen ñu jàppale partenariat bi ngeen yéene tàmbali koog nun bokk na ci euh, euh, lii nii te lii amul lu ko gën a mën a ëpp njariñ xam naa ne tàmbali bee tax nii ak tey lañ commencé ma xamal ñëpp na leen comme ni nga ko waxee léegi bu subaa incha allah al ata ak fondation bi dañuy dem Mariana 1 Mariana 1 xam ngeen ne ay quartiers yu yaatu la dem na ba cinq xuma 6 tey def nañ ci yitte ji man ngir population bi dégg ko ngir ñëw jëriñoo jëriñoo yitte ji bu ñu ci jógee ndindi lañuy euh, la ñuy dem dibéer euh, yendu fa moom itam foofa sañcaan yi ak nam toll loolu kon euh, ñëpp nañ ko xamee noonu kon daal fondation bi ak conseil bi fondation bi conseil bi ñii ngeen lim suñ teew fi ñëpp ñu ngi leen di sargal di leen di leen gërëm bu baax ci turu soxna si ñu leen gërëm bu baax di leen sargal xam ne ñëw ngeen seen kër waaye suñu xel dal na itam ndax li ñu soxla mooy partenaires yu mel ni yéen ci taxawu ci efficacité te loolu feeñ na bu baax a baax euh, kon li ci kanam li wax di wax réewu li bët te lii wax naa ne euh, junj rek la ishaara la li ci kanam mooy gën a ëpp te am na déjà ay acte yu gën a yu gën a tënku yu gën a yaatu yoo xam ne nii dana feeñ bu baax a baax te commencé ngeen ko bu baax a baax ñu ngi leen gërëm bu baax di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah population macha allah bu toll ne population Touba bi di leen seet gratuitement te xam ni lu bëri ci population bi amuñu accès ak consultation de spécialité ñoom ñu indi fi quatre ou cinq spécialités yoo xamante ni dañuy ñëw di saytu malaat yi mag ñi ndaw ñi jigéen ñu wérul ñi loolu defe naa lu ñu def lu dul di ko rafetlu euh, surtout ci contexte bii ñu nekk nii nag mooy contexte màggal gi préparation màggal gi nga xamante ni nit ñi dañuy bëgg di dem di saytu seen yaram ñëw nañu tey fii indi fi ay spécialité indi fi ay docteur yu bari indi fi aussi seen ay garab yoo xamante dañ lay consulter may la garab yi loolu quand même rafetlu nañ ko bu baax. y' a y' a y' a y' a toutes les spécialités qui sont là ñi nekk fii ñëpp spécialités yi fi nekk yëpp soxla nañ ko pédiatrie bëri na malade gériatrie sax ñëw nañ pour mag ñi. gynécologue gynécologue aussi indi nañ ci ay docteur ñu ñëw di consulter maladie cardio tamit wàllum tension ak xol xam nañu loolu mooy feebar bu gën a bëri fii si euh, donc spécialité yooyu yëpp ñu ngi fi ñëw nañu tey pour xool si docteur malade yi. ndax da ngeen leen di consulter ba pare may leen ay médicaments. waaw dañoo ñëw ñoom pour consulter leen après dañoo indi seen ay garab yoo xam ne bu ñu consulter ba pare garab yi dañ la koy may loolu dañ ko gratuit. incha allahu rabbi en tout cas tey moom li fi nekk moom dinañ ko jeexal ñoom balaa ñuy dem parce que nit ñi macha allah takku nañu docteurs yi ñuy fiy indi takku nañu garab yi aussi tamit doy nañu. bëri nañu noo gisee Al Ataa loolu laa wax ma liggéey bi rafet na ñu dañ koy magnifier parce que Al Ataa li mu def tey ci askanu Touba la ko def def na ko aussi ci waa santé ndax dimbalum waa kër docteur la ndax ki umpalewu leen ni fii bërëbu fajukaay yi xëy na matalewul askan wi yëpp donc ñëw bu ñu ñëwee pour jàppale ñu donc defuñu lu dul dimbali askan bi dimbale waale aussi waa kër docteur